relation ak Siteu. waaw lan nga bokk ak Siteu si lan waaw loolu moom su ma koy waxaat fii du jeex ba nii nii démb heure bi nii nii rek ñoo toog di wax téléphone. dem heure bi ñooy wax téléphone ñu toog waxtaan nañ ñu bari si affaire àdduna affaire lamb sama relation Siteu moom ñëpp xam nañ ko xam na sama rakk la si benn côté si beneen côté bi papa la si man waaw si beneen côté la si man beneen côté bi rakk la si man. waaw li ñuy ñaar rek mooy papa ak sama papa ñoo daan ànd suba ngoon guddeeg bëccëg ñoo bokkoon benn bi ñu daan tëdd xam nga. ñoo bokkoon benn kër ñoo bokkoon benn bato bi ñu daan liggéey xam nga bon nag man ak Siteu ñoo juddoo si benn kër Jàmmagén man Jàmmagén laa juddoo yaroo joon waa màggee ñaar tali waaw bon nag ku juddoo Jàmmagén yaroo joon waa màggee ñaar tali xam nga ragal bul nekk si yow waaw. seen papa ay xarit lañ woon ay mbokk lañ. nekk ay mbokk 100 pour cent. waaw ci déret bokk benn déret 100 pour cent suñu yaay itam wax noppi. waaw kon sama mbokk la. pour cent yaay si ak sama yaay ñoo daan ànd tam suba ak moom guddeeg bëccëg waaw. mu mel moom tamit sa xarit la moom du sigi xool ma bu ñuy waxtaan du sigi xool ma waaw bu ñuy waxtaan téléphone yi yàgg ni maa koy naan waxal du nangoo wax lépp lu muy dugg balaa muy def dara def may woo ko laaj ma ba pare man tam même chose lépp lu may dugg ma koy woo laaj ma ba pare mu nekk rakk ju ma déggal daal moo tax instant ni ma ko ñaanal daal li mu am ni si kanamam daal yàlla ko yàlla fal cat daal waaw parce que la car macha allah xale sénégalais bëgg nañ ko di ko ñaanal sénégal nañ ko ñaanal jàmm daal yàlla defal ko jàmm ju baax combat mu jub ko si ndam ndam lu seddu gis mm-hmm. mm-hmm. ba foog ci moromam mm-hmm. ñu doon gis kenn bi am combat moromam lay ñëw stade mel loolu la mu jëloon dañ loolu ba léegi teel teel teel a gën a am teel a gën a neex sama diggante ak Lac dara mos ci am lu ñaaw dara mos ci am lu ñaaw démb démb rek moo suñu mujj ñu déggante téléphone déggante whatsapp man ak moom comme ay doom bàjjen lañ mel waaw damay jege toog bu mu gaaree sama buntu kër ñu toog di waxtaan ka fooree xam man tamit damay jege dem sa koo dem si kooñam darape foofu si Vénétien bi toog waxtaan bëgge waaw muy mbër yoo xam muy mbër boo xam ne daal dafa ñàkk ñaan ku ñàkk ñaan la daal ñoo bokk ngb xam nga ñoo bokk culture bi ñuy def waaw man daal dama ko ñaan a jàmm yàlla na ko yàlla defal jàmm waaw gis nañ tamit bu mel ni na. Mm-hmm. parcelle mm-hmm. am na fi lan moo tax NGB bi amul loolu. waaw voilà loolu nag dinaa si kontaan naa sawar trop trop trop trop cent pour cent NGB moom am na cent pour cent NGB am na cent pour cent Ndiandaxa am na am na waaw am na zone trois cent frontière am na tam ñu ñëw zone trois sans frontière ñaari tali Grand Dakar Biscuiterie Waagu Ñaay boobu ñun ñëpp am nañ mbëri fi nekk cent pour cent tey jii boo duggoon sama téléphone. suñu groupe whatsapp yaa ngi foofu lépp lu ñu bëgg dañ koy def am nañ 100 pour cent te bu saison bi di ñëw saison bi di ñëw bu soobee yàlla di nga si xam dara. waaw mbër yooyu bari nañ ay ñoom Dijé ñoom Noiro ñoom Boy Dakar ñoom Gaynaako xam nga ñoom Lagros ñoom Pape Ndoy xam nga bari na daal xulum da ngay juum ay ñoom Fay Biram mbër yëpp ñu ñoom Sitor ñoom Faali xam nga ñoom Vieux ñoom Thiat Junior ñoom Zola waaw ñoom ñoom Mbay xam nga ñoom caat deux gars yëpp ñu ngi si. mbëri NGB ñëpp a ngi si ñëpp a ngi si groupe bi. ñoom Saalum doo ñëpp bàyyi ñu kenn ñoom Saalum Saalum gars yëpp a ngi si biir ñoom Modou Awatine. ñëpp non loolu kesoo yéex a parce que manque de am daawoon na am mais manque de communication moo amoon mais après bi WhatsApp bi amee daal kenn sonnatul xam ñu récupéré numéro yi ñëpp xam nga ñu wax si groupe bi di waxtaane di kaf di foo diree ba miinante ñu ñëpp ñu nekk benn parce que boo xoolee boo xam combat bi passé dafa mobilisation dem équilibre xool jàppale ko si entraînement yi combat diggé bi tam même chose suñu combat ñun tam même chose waaw mais bi saison bi di ko def mais sans yi bu saison bi tijjee moom nañ gars yi dañ nga xam yëpp dégg la parce ñu mbëri ñu ngi communiqué suñu biir ñu ngi waxtaan suñu biir ay Cheikh Tidiane ñaay dana fop daal ay Baldo yi xam nga waaye dégg naa nga tudd boo xoolee boo xool ñoo bokk benn yenn village yi que suñu village yi même même alignement la parce que boo xoolee ko Cheikh Tidiane suñu seen village suñu village ñu bokk benn pont moo dugg seen diggante waaw pont moo dugg mun nga yeewoo fii dem ndekki jee fee mun nga jógee fee ñëw añi jee suñu village na ñu ay mboq lañ ay mboq yu jege lañ Valdo tam même chose waaw Valdo bu ñëwee bu ñëwee suñu dëkk Dionewar sama kër papa lay nekk sama kër papa lay dal ba nag ñooy amul daal du ñaar parce que ñoo bokk il di Saloum bi ñu nekk am na ñeneen ak ñeneen mais kenn kenn mënul lim ñëpp am na ñoom kéemaan gars yëpp ñoom sangomaar xam nga ñëpp ñu si arène bi di ñaanal yàlla daal dafa ñu mbokk jàppale ñu xam ñu ñaan nañ yàlla may ñu sutura may lu wér xam ba fu mu bu ñu egg si làmb ji egg fa kenn xamul kii doon champion naak waaye ke kii doon champion waaye kii doon champion yàlla na ko yàlla defal képp ku mu doon yàlla na si yàlla jàppale xam nga may la si may la si wér ak wér li waaw waaw kooku moom dëj dëpp gi la kooku suñu nijaay la suñu lépp la suñu nijaay suñu papa la suñu grand la suñu lépp la parce que boo xoolee boo xool tey boo gisee ñu def làmb essence yi tànkam la ñu roy dañ koy roy parce que fi jaar la ñu bëgg a jaar waaw ñun tam dañ koy woo di yoolaat suñu conseil ñu defee leen nii defee leen nii kooku amuñu fayam dañ ko ñaan yàlla yàlla ne ko yàlla defal jàmm waaw def nañu kenn mosut a def ci làmb te yaakaaruma kenn dina ko gaaw a defaat ci làmb di ko ñaan a jàmm di ko wax gàcce ngaalaama Yaaya Jóob yàlla na yàlla defal jàmm lépp loo yor ci làmb yàlla na ko yàlla defal te mu yomb la waaw loolu lañ ko ñaanal instant nii nii nii te instant yi def na def na woyam jeex na ci làmb daal instant yi fu mu toll nii waaw di wax waa population nono fogole seere noon jeho i jeeho leŋ ha refena nuno nu sikkay goofewo maak fa teɓ nu somi yakaru i yakara o lene o lakas a refena nuno waaw nu sikka in te miyo mi sitayo pul lakas ka yo an pulidena fulo fop ke manin xam bir seere ke ndema na maafe aren fop we ngeɗa nu nda nu sikta in